suñu suñu suñu suñu suñu problème mooy lu tax couvrir ñu plénière bi parce que plénière bi du privé public la du commission ad hoc ñun journalistes yi war nañu mun a dugg ci biir couvrir en temps réel ñu euh, jox xabaar bi normalement ñu sénégalais xam euh, li nekk ci biir assemblée nationale bi sinon rek dugg bi day daal di continuer ci li fi nekk. dugg ci plénière bi plénière publique la ñun ay journalistes lañ on nous traite mal dans ce pays pourquoi on rentre pas couvrir la plénière couvrir ce qui se dans ce pays nekkuñu nekkuñu ci commission ad hoc privé dañu nekk ci plénière ah, dañu nekk ci plénière dañu war a couvrir lépp ñu ñëwee fii nii pour am information la mais pas pour ñuy taxawloo ci mbedd mi lii dafa war a jeex gis nga Bouba ñoom bu ñu soxlaa tey jii nii information pour couvrir leen dañuy woo ñu dem ba sa biir kon boog tey affaire Ousmane Sonko tey jii nii bu amee ñun dañoo war a dem ndax dañoo war a jox population bi ay information yéen nag journalistes yi ñun ñi ñëpp nekk journaliste dañoo war a ñaxtu ndaxte information moo ñu tax a ñëw fii nii kon boog nañ leen waxante dëgg c'est trop c'est trop nañu respecter journalistes yi nag. waaw Rose il est temps ñu respecter journalistes yi. alors euh, déjà ñu ngi leen di jaajëfal euh, ci manko bi ndax euh, booloo mooy doole sànq niñ ko waxee boo leen gisee si suba ba léegi amuñu benn accès pour dem fi nga xamante ni mooy assemblée nationale depuis nag procédure bi tàmbali ni lay demee dañuy sandi à 300 mètres de l' assemblée doo sax mën jàkkaarloo assemblée député yu bëri di daw seen responsabilité bu ñu génnee duñu nangu ta jàkkaarloo taskatu xibaar yi te askan wi moo leen fal teg leen fi ku ci nekk acte booy posé da jël say reste engagement personnel nanguñu ñu jàll loolu la ñuy kaas dañ ñoo war a ñu jàll. ok dem taxaw buntu assemblée mën a couvrir.